mafatihal bishri wal amni wal fi salaati wa bokki murid yi bokki murid ñu dellu dal xam ne ñoo ngi ci kanamu borom tuuba suñ mënoon a ñàkk nooyi duñu nooyi kon bu mënta ñàkk nooyi rek doy na ndax war am ak àqam lott nañ ci jox ko ko waaye nañ jéem lu ñu man nañ jéem lu ñu man Mbàkke noo lay siyaar te di la jéggulu ci yëngu bi maanaam du sunu coobare sunu matt di rek waaye nag nu ko jégal ci sa mbaax ñu ngi lay siyaar te di la ndokkeel ci bis bu tedd bii maanaam di la sant sëñ Tuubaa di la sant sëñ Tuubaa waxoon nga nu fii day ne réew mu ne mën naa jaaxle ba mu des réew mu am sëñ Tuubaa waaye Mbàkke bi jaaxle daje àdduna wane nga ko corona de dama wax ne da doon liggéeyal si sëñ Tuubaa ndax sëñ tubaa day kenn yàlla kennal ko te jaam ñi dese koo xam koronaa ñëw na firndeel ko tey da ñëpp nangu nañ ne sëñ Tuubaa kenn la kon corona jërëjëf liggéeyal na sëñ Tuubaa ndax sëriñ bi kat dafa waxoon ne zimaamul wara asri ladallaahi fi yaddi ca korona ci alwara la bokk ndax ku duñu ko ka ñu bind rek ka bind ca korona des koo bind kon nangul na sëñ tubaa ñëpp nangul nañ sëñ tubaa bu amee ñu des ci doomi aadama la ñëpp nangul nañ sëñ bi korona nag da doon liggéeyal sëñ tubaa ngir kennal sëñ tubaa ñëpp nangu nañ bàkke waaye nag yaa ko jëmmal yaa ko jëmmal ndax diina joyit mat na sëkk te lim bëggoon sëntu waa defal na ko ak njabootam li gënal yàlla ci kaw suuf nga xam ne bu baaxee ñu ne lépp baax na su desee ñu ne li ci des jarta seet gannaaw baaxut muy julli bi ñëpp dawee bàyyi ko ngir seen bakkan yaa jël bakkan mu rëdd tay la ko ngir julli julli nan ba corona wan nañu ginnaaw te sun bakkan desu ci Mbàkke jërëjëf jërëjëf Mbàkke bëgguma gën a guddal ci wet googu waaye amel na nag cant gu wér Mbàkke boo xam ne bu ko jot gi amee woon des na ko wax ndax kat sëriñ bi daa waxoon ne kooku ñuy wax géwal bariwuti wax ku ko jëf ku ne ku ko wax ga bëgg te jëf nga ko warees na ko wax jëre jëf su su ko defee nag kuréel gii fi teew di kuréel gi bàyyi ko Italie ak Europe gi ko wër sëriñ Jaam jiite ko sëriñ Saam mënu ko wax boppam ndax saatu saatu du wat boppam waaye liggéeykati sëñ Tuubaa lañ yoo xam ne la Cheikh Abdoul Ahad waxoon lañ jëfee mooy daa waxoon ne liggéeyal sëñ Bamba bakkan day laaj waaye liggéey bu egsee fii dañoo tayle seeni bakkan ba liggéey bi egsi fii muy sëriñ Saam ak mbokk yi mu àndal di jàmbaar yoo xam ne Mbàkke dara ump la ci junj doy na kuréel bi mu lay junj itam euh, sëriñ Amsatu Mbàkke dafa waxoon ne lii yéenam ci dig bëggam mooy ahlu xasida gépp doon aw say ne ci sa gannaaw ndax ni ma koy faral di waxee sëriñ bi ci suñu biir la la tànnee jiital la ngay sëñ Tuubaa ku la xam-xam la ci xasida yi kenn mun la cee dab kenn mun la cee seen nga bëgg ko lool fii ci sa penc mi nga ñu woo jàngaloo ñu fi ñetti téeméeri fulkul masoon ak fukki mal fukkul fulkul masoon ak ñett ba nga nu koy wax ca Poroxaan da nga ne du ko tàggoo ndax daa rëy bu ma ko tàggoo samay kilifa mën nañ ma koo tere ci li dara mënuma koo tee def fii ci penc mi lañ ko defee loolu yàgg na lool njaareem ba nga koy ubbi fa lañ daje jàng fa téeméeri fulku kon mbakki xasida yi ku la xam ci la ko xam fulku bi sëriñ ba Basiru di liggéeyee muy xuraan yi bi ba ngay egsi rek lañ ko teg ci sa loxo ba tey mi ngi soxla yàlla na gën a yàgg sëriñ Amsa wax nag dafa bëggoon ñu lëkkale kuréeti xasida yëpp ñu nekk benn say na ci sa gannaaw ndax nun buñ booloo man dara ndax xasida yi mooy liggéeyub sëriñ bi loolu nag sëñ Sam mii ak sëñ Mamadou Ndiaye ñu ngi ciy dox jéego yu rëy ba mboolem lëkkale nañ lu mat ñaar fukki kuréel ak lu topp ak juróom-ñett muy arafi Touba kon dal na am xel eh, biñ ci waxtaanee dama ne sëñ Mamadou nañu na ngeen jiital sëriñ Saam mboolem li diaspora bi mën na koo taxawu ñu buñ ci noppee fekk si ñun ñu nekk fii lëkkoo nañ ba noppi lu nekk ci gannaaw sëriñ am sëtu mu nekk ci sa gannaaw ñu ànd liggéey bi sëñ Touba bi bëgg yóbbu ko fa nga bëgg sëñ Touba yóbbu ko fa yow nag fi nga ko bëggee mooy nu doxe ñaari tànk ci bañ tànk. ñaari tànk yi mooy charia bu mat sëkk ak àq bu mat sëkk ndax Cheikh Abdoul Xaadir mës na ma ko wax ca lappe ngan gum doon defal sunu waajur wu teddoo sëñ Abdoul Latif am lu ma ko doon laaj mu ne ma sëriñ bi da ñett koy wut waaye kenn koy am ne ma nit day wut sëriñ bi ab dof di wut sëriñ bi ku nit di ko wut ne ma Aliou ma ne ko Mbakke mu ne ma ki nit rek am sëñ Tuubaa ndax ab dof day def ba def lu ëpp def nit danaan lii ma du ma ko defal kenn ku nite nag lu mat a def nga def lu mu ëpp a def nga bàyyi ne ma yomal xiyaam ñett fay tase ki indi sari ab kese ki indi àq ab kese ak ki leen boole ne ma ki indi sari ab kese buñ gaawul ci moom mu loru ndax mënu fa mënu fa mënu faa jariñ boppam dara daal dina ki indi àq ab kese mën naa jariñ boppam waaye mënut ta jariñ kenn ne ma ku leen boo ku leen boole nag koo bëgg a dimbale da nga ko dimbale Mbàkke foofu lañ ko bëggee kon Mbàkke jërëjëf déglu tëj ma tëj ñëpp déglu taxaw dina baax li ma bëggoon a gis lépp gis naa ko sëriñ nee na li mu bëggoon a li ma bëggoon a gis lépp gis naa ko ci yéen li ma bëggoon a dégg lépp dégg naa ko ci yéen tey ji bu ma sa bu ma bu ma sañoon ku di murit dana dana dana déglu ci kaw suuf kuy dund boo ma sañoon sañ jeetaay bii ku di murit dana ci bokk ma wax wax ji wax ji wax ji wax ko ba noppi waaye loolu mooy mooy mooy mooy mooy xasida yi xasida yi xasida mooy sañ bi xasida yi mooy sëñ bi ku bëgg a xam sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi ku bëgg sëriñ bi da ngay ne fonk xasida yi bi da ngay ne fonk xasida sëñ bi mooy sëñ mooy sëñ bi xas yi moo nekk moo nekk diggante moo borom digg moom yonent bi digg ma boppam xas yi mooy sëriñ bi kon liggéey bi réy na liggéey Sëriñ Tuubaa réy na lool ndax luy lu baax rek luy lu baax rek nañ ca nekk nekkal ko ca mu dib liggéeyam waaye xasida yi nag mooy liggéey bi mooy mooy moo jiitu ci liggéey bi mu jiitu ci liggéey bi bu doon xare bu doon bu xare ña nga xam ne ñoo jiitu xale bi topp seen gannaaw ñuy jéer jéer fu xale fu yi toll bu fekkoon ab xale la kon jàngi xati fonk xati xasida yi xam xati xam xati xasida yi bëgg xati xasida yi liggéey xati xasida kon ñooy jiitu ca kanam xas lii mooy sañ bi buñ ko xamee ak buñ ko xamul xas lii dafa jar jóg jàngi xam-xam am xam-xam ñëw ñëw nag ñëw nag nekk ci biir xasida yi di liggéey xasida yi dafa ja dafa aajo jàngi xam-xam ba am xam-xam ñëw nag jëbbal si lépp xasida yi nekk ci sëriñ bi loolu loolu loolu laa joon dégg ngeen wax bi loolu loolu laa joon benn murit bu ne bu xamee lu xew dafa war a daa daa war na jóg jàngi xam-xam jàng ba ne ar dellu si nag nekk ci xasida yi nekk ci sëñ bi dégg ngeen wax bi loolu la laajoon loolu la laajoon jërë ngeen jëf damay damay yéen yéen yéen dama leen di firi damay firi rek waaye def ngeen lépp waaw nii rek la loolu loolu nag du yéen sëñ bee sëñ bee tawfeex sëñ bi mm-hmm. moo leen dugal ci loolu moo leen ci moo leen ci nargan moo leen ci wommat loolu du yéen sëñ bee waaye wax baa ngoog xel loolu loolu loolu mooy dafa ne am na góor gu bari xel ba muy gënee di gone di ndaw ñuy waxtaan di déggoo lool muy ñu waxtaanee baag si si mbir di ma ne ah wax ñu ko daa xamul li xew rek mu ne waaye bàyyi li nga wax xam li xew a jafe <laughs> waaye yéen yéen xam li xew mu <laughs> ngoog de noonu la de. kon jërë ngeen jëf. jërëjëf mafatihal bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna